wasalaatu wasalaam ala asrafil anbiyaai wal mursalin sayidina wa maulana muhammadin il wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwani wa tamkin bokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu eh, ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feddliwaat sunu yaakaar ci cheikhuna ahmadul xadim ñaanal sëriñ tubaa cheikh mahamadul muntaxa yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal te gën a dolli ak wéram noo ngi am mbégte di ñëwaat ak yéen seen émission bi ñu duppee ëttu murit mbokk yi ëttu murit ngeen di ko ànd ak seen mbokkum taalibe Fallou gala Syll mu feggoo ci wàllu machine bi alaaji Fallou Sylla ak alaaji Falilou Fall mbokk yi tey seen émission ëttu murit ñoo ngi jaajëfal bu baax a baax mbokk yi nga xam ne toppoon nañ ci émission ba la nga xam ne ñu ngi ci dalaloon waa Nuuru Daarayni Touba ca kanam te ngeen gis jaayante gu rëy gi nga xam ne jur na ko ci bokki jullit yi ak bokki taalibe yëpp ñu koy jaayante ngir liggéeyal Serigne tubaa ci dëkkam boobu nga xam ne moo di Touba te mu ñaanoon boromam subhaanahu wa taala wax ne waccal ilaahi maskani Touba abad mislas mi bi jaahi xayri man abad loolu rek moo taxoon murit yëpp jaaju jëm ca kon ñu ngi jaajëfal mbooleem tele téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ngi doon topp bokk yi tey seen émission ëttu murit ñu am dem ci ëtt boo xamante ne bii ëtt bu sunu borom di nangoo ak ñaan la dem ci ëtt boo xamante ni bii nangu ñaanuk borom ëtt ba taxoon na Moustapha sallallahu alayhi wa sallam fekk ko ci ëtt boobee te mooy lu leer naññi bokk yi ëtt boobu mooy ban ëtt moo di ëttub Baxdaat ëttub Baxdaat bu ñu ko tuddee xel yëpp danañ dem ci Cheikh Abdoul Khadir Mbacké ñuy jaar bu baax sëriñ Cheikh Mbacké mi nga xam ne moo toogee jataayub sëriñ Abdoul Khadir te mate ko sëkk ñuy ñaan yàlla mu gunge ko fan wu gudd waa ànd ko wér te musal ko ci mbooleem pakk yi ak ndog yi ba lu mën naa la liggéeyal sëriñ Tuubaa lépp suñ borom may ko kàttan mu liggéey ko loolu ñu di ci siyaar bu baax sëriñ Moustapha Mbacke mu sëñ Xaadir mi nga xam ne moo di jëwriñam di rakkam yore kàddoom waaye moom it mu fab liggéey bi lépp teg ko ci loxol sëriñ Sidi Mbacke moom Cheikh Abdul Xaadir di maam Cheikh Anta mi nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu kër gi ci wàllu liggéey ak yëngatu lu ci mën di doon ci loxoom la ñu ko teg ñoo ngi koy siyaar di siyaare mbooleem njabootu Cheikh Abdul Xaadir gépp tàmbalee ko ci sëriñ Abdul Wahab sëriñ Abdul Ahad sëriñ Abdul Samad ba ci sëriñ Bachiru Mbacke Cheikh Abdul Xaadir mi nga xam ne moo yore kaddu xalif général des mourides di siyaare bu baax soxna Moominatu Mbacke bintu Cheikh Abdul Xaadir ak mbooleem rakkam yëpp di mbooleem njabootuk sëriñ bu soobee yëpp bàyyiwun ci kenn mbokk yi tey ëttu murit ñu dalal sëriñ Jili Diop ci sama loxol càmmoñ sëriñ Jili Dia ci sama loxol ndijoor ñu fas yéene waxtaanee. Euh, ijaabatu gi nga xam ne Cheikh Abdoul Khadir Mbacke am na ko waaye loolu ba lañ ci dugg moom Serigne Jili Diop dañu koy bàyyi mu nuyoo ak mbokk yi àndaale ak laaj bi lan mooy baatub ijaaba ci boppam lan mooy ijaaba ginnaaw boo xamante ne bii nuyoo nga ba noppi nga indil ñu tomb boobu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki julli yu tedd yi mbokki taalibe yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ak fu ñu mën a nekk. ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di leen nuyu Serigne Fallou yaak ñi nga àndal di am mbégte bu baax ci teew ngeen teew ci ëtt bu barkeel bu màgg bu sell bi ak waxtaanu am solo wi nga xam ne fas nañ ko yéene waxtaane jàmbaar ji Serigne Abdou Khadre di ñaan suñu borom tabaaraka wa taala mu defal ñu tawféex yi li nga xam ne nasir nañ ko yéene ko waxtaane yàlla defal ñu làmmiñ wu leer ak xol bu ubbi ko buñ ko mën a waxee te ñu bokk ko jariñoo ngir tontu laaj bi al ijaabatu buñ ko waxee xel yëpp dana daj li ñuy wax wuyu ak ñaan ndax bu ñu al ijaabatu baatu arab la waaye li ñuy tekki mooy koo xam ne lum ñaan yàlla fekk ko ca loolu la ñuy wax ijaaba ijaaba kon mooy loo sa borom mu la ca baat bi moom lay firi kon mooy ki nga xam ne lum ñaan yàlla defal ko loolu mooy ijaaba bu ko defee lu tax ñu tànn ijaaba di ko waxtaane buñ ne baatu ijaaba danañ xam ne kon ñaan day am ijaaba am kon war na ñoo xam ne ijaaba googu am na ay charte yu tax mu am ndax ñaan ci boppam ak jaamu yàlla la goo xam ne suñu borom tabaaraka wa da koo digle ndax moo ne ñaan leen ma ud'uuni astajib lakum waaye ba ne ud'uuni astajib lakum kon la njëkkee yonent bi alayhi salaam ne ad-du'aa huwa al-ibaada maanaam ñaan mooy jaamu yàlla Sëñ Tuubaa bi ñu koy jàngal daa waxoon na itam mooy moxul ibaada mooy yuurug jaamu yàlla nga xam ne kon ñaan rëy na rëy goo xam ne bu amut jaamu yàlla jaamu yàlla amut ko defee nag kon ñaan moom mooy jur ijaaba ndax da ngay ñaan yàlla mu may la ijaaba fekk na nga am sart yoo lamboo sart yoo xam ne mënta ñàkk kon bu buñ ne ijaaba mooy yàlla wuy sag ñaan yan sart mooy tax ba wa ñaane ñu wuy la ak Cheikh Abdoul Khadir nu mu jëmmale loolu ba bu ñaane yàlla may ko xëy na loolu mooy doon waxtaan insha allahu taala macha allah euh, kon ndakate yàlla ci boppam moo njëkk sant jaam bi ci ne ñaan ma ñaan ma day mel ne ku lay wax ñaan ma ab tab la nag settiwut li nga koy ñaan kon baatub ñaan ma la yàlla jëfandikoo ci jaam ñi su ngeen ma ñaanee man dinaa leen wuy kon nit ñi war nañoo xam ne nakate lépp lu jaam bi am ci yàlla daf ko koy ñaan mm-hmm. waaye lu ku yàlla jaay daanaka doo am njëg mm-hmm. kon yàlla day maye ginnaaw day maye nag mm-hmm. kon loolu bokk na ci ndigali yàlla yi ci ab jullit moo xam ne daa war a tàllal loxoom yàlla te di ko ñaan dégg nañ ci it kon ndakate ñaan lu munut amut ndax ki ngay ñaan lu ne lay am ñu bëggoon a xam nag jaam bi nga xam ne ndax ñëpp ay ñaan waaye du caaginu ñëpp la yàlla y wuyu kon anab jaam bi wan kaan lay melowoo ba bu ne yàlla ana nga mu ko maa ngi nii. jërëjëf sëñ Fallou naa loolu kon lu am solo la bu ñu bii sax li tax am solo mooy toll nañ jamono joo xam ne eh, mel na ni daan nañ soxla ñaan waaye gën nañ ko yittewoo ndax xam nañ ne eh, jafe-jafe yi bari na yitte yi bari na soxla yi bari na yu baree bari yoo xam ne ñu ngi jànkoonteeg moom te xam nañ ne ñaan rek moo ñu ci génne. souvent nag kon bu ñu fàttalikoo ku mel ne Khadir ak ni ko yàlla maye woon lu mu ñaan yàlla may ko ko dañoo war ay jikkoom bu ko defee ñu roy ko ngir fexe jéem suñ kem kàttan ngir duñ àgg ci moom waaye bu ñu àgg foo xam ne buñ ñaanee yàlla yàlla wuy ñu ndax am na yu mu waxoon ne bu ngeen ko defee bu ñaan du ma leen nangul am na yoo xam ne ngeen ko defee bu ngeen leen ndax moo waxoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko wa idaa sa'alaka ibaadi anni fa inni qarib sa sama sa sama jaam yi buñ la buñ ma la laajee neen maa ngi ni jege lool te jege gi jege mooy uji bu dawata daan isaa daan maanaam dama damaa jege ngir ku ma ñaan mu wuy la addis ba wax ne guddi gu nekk bu demee ba ca mujj ga yàlla day wàcc ba jege naan ay eh waay ku may ñaan ma may la eh ay ku may woo mu wuyu la kon yàlla moom sabab yi tax yëpp bu ñu ko ñaanee mu may ñu jàppandi nañu ko mooy tab gi nga wax subaana kon yan sart nit ki war a fexe ba mu nekk ci moom li ci njëkk mooy mu sell mu am ixlaas ndax fad'uuhu muxlisiina maanaam bu ngeen koy ñaan da ngeen fekk ngeen yoon ñu sellal sellal nag mooy lépp looy jëf ne yàlla tax maanaam dara njëstal bu mu nekk ci yow lépp looy jëf rek yàlla tax loolu sart la ci sart yi tax boo ñaanee suñu borom tabaaraka wa taala mu wuyu la njort ci ki ngay ñaan ndax moom yàlla moo ne maa ngi fi ma jàmbi njort kon booy ñaan te te jàpp ne li nga ñaan kenn du ko nangu xamal ne mataloo sarti ñaan day aajowoo yow mi ñaan nga gëm ak rafet njort ci ne ki may ñaan damay may ginnaaw boo mattalee ixlaas boobu ñoo xoon waaye itam nga góorgóorlu ba doon ko xam da teeyal sag lekk ak sag maanaam da ngay lu lew ndax lekk lu lew soo ko defee day tax boo ñaan yàlla muy la yonent bi salaam waxoon na ne am na koo xam ne day tukki na tukki bu metti lool sonn ca lool fagg lool fënd lool ku ko gis xam ne kii ko sonn la mu yëkkati loxoom naan yàlla may ma yàlla may ma yàlla waaye noonu nee na kooku nu ko yàlla yiwuyoo la ko waral mooy lam sol lewut ci lewut ci moom la muy lekk lewut ci moom la muy naan lewut ci moom amul dara loo xam ne lu dagaan ci moom lu muy jëfandikoo la lépp lu muy jëfandikoo rek tegu ko fa jaaru ko fa mu ko war a jaar mm-hmm. te defe naa kon loolu bu ñu ko waxtaanee dañ xam ne nit ñi war nañoo xoolaat bu baax nit ñi fàggoo ndax ndekete soo bëggee boo ñaan yàlla may da ngay fexe ba sax fàggu lew am na ku yéen par exemple waxoon ci sahaaba yi ko del lekk lu lew nekk ku am ijaaba de lekku lew nekk ko ijaaba kon loolu bokk na ci sart yi nga xam ne dana tax nit ki yàlla nangul ko ay ñaanam sëñ Tuubaa jàngale woon na ko ci mag ñi na leen yàlla day ku ne ko ànd nga mën la la mën la maa ngi nii ñu ne ko luy ànd nga man mooy nga nekk ci li digal bàyyi li mu la ngi nii mu ne mooy saa ko ñaan may la kon ku bëgg yàlla di la nangul di la may li ngay ñaan sart yi ma day fekk mu ne ci yow say jëf sell ngir jëmi yàlla fexeel ba la ngay lekk na lew waaye itam sart yi nga rafet njort ci ki ngay ñaan xam ne kuy maye la bañ a yàkkamti it jàpp ne dangaa ñaan tey suba ñu may la ko yooyu yëpp bu fekkee daje na ci yow soo ñaanee mën naa am na nga ko bëgg doo ko amee noonu Cheikh Abdoul Khadir nag defe naa loolu lépp daje woon allah eh, jërëjëf eh, sëriñ Jili ndakate jaam bi bokk na ci ay sartam ngir yàlla mën ko wuyu ndakate nit tàllal na loxoom yàlla naan ko ana nga ana nga ba tey te yàlla gëstuwu ko fekk na booba yàllaa ngi dem nag moom mm-hmm. waaye la tey yàlla wuyu ko ci moom la nekk mi ngi mel ne eh, yow moo xamante ni bii da nga bokk ab dawkat ba noppi di golo na ko kaay la tee goy nga wuy si ko yaa ko def kon ndekete jaam bi bokk na ci ay sartam mu fexe bay dunde lu lew ndax bu dee dunde lu lew ay cawa ay cëram danaan sawar ci jaamu yàlla te su dee jaamu yàlla su dana naagu ci yërmaande yàlla te dana tax yàlla bu ko woowee muyu ko waaye képp koo xam ne saw sa say cër moo xam li ngay sol moo xam li ngay naan moo xam li ngay lekk moo xam li ngay jëfandikoo moo xam nangam ak nangam ak nangam ba ci li ngay dundal sa njaboot bu fekkee ne dara léwu ca daanaka jaamu yàlla doo ca mën a wuti te mun jaam bi munta nekk lu dul di jaamu yàlla bu koy jaamu sogo woo yàlla mu wuy si ko kon nag gàllankoor gi mi ngi njëkk a tàmbalee ci dalay dalay soril ak jaamu yàlla nga sogo mën a yàlla mu si la loolu kon dama yaakaar ne sëriñ Jili Ja du ñàkk ay kàddu yu mu ci dugal gis nañ ko lan mooy ijaaba mu ne mooy wuyug ñaan yàlla mi waxoon santaane ne udduuni as udduuni astajib lakum woo leen ma dinaa leen wuy si yàlla moomee wuy ak ñaanu yàlla mooy nit dana ko amal boppam koo xam ne fu mu ne yàlla anam mën a maa ngi nii ñëw na ci waaye tam nag lan mooy sarti nag am ijaaba ñëwal nañu ci mooy euh, jullit bi di di lekk lew tey naan lu lew tey sol lu lew te te mucc nag ci mbooleem lori nit ñi ci aw làmmiñam euh, sëñ ji di ahousubillah bisimillahi inna waliya allah wa ma tawfiqi illa billah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu sëriñ Fàllu ñu ngi leen nuyu bu baax te di la ziar di jaarale nuyo su nuyoo mboolem mbokk yi ñu seetaan ci yow waaye di nuyu sunu mbokkum daara mi di Cheikh Abdoul Khadir Diop te di ko ziar bu baax di lu kàdd yi nga xam ne eh, sotti na ko fi te lépp di ay njariñ mu mel nekkee tudd na ay poñ yoo xam ne ginnaaw ba mu leeralee lan mooy al ijaaba day mel loolu moom mën lañu ñu wax ndax leer na ko mu leer naññi waaye li ma ta bàyyi xel mooy tudd na ay tomb yoo xam ne ndekete yoo nit ki bu ñaanee te ñaan ngi nanguwut mën naa jéem a nattul boppam ba xam lan mooy tan lan moo te ñaan ngi te day mel ne indi nañu ay poids yoo xam ne ci la ñuy nattoo ba bu sa ñaan ñàkkee nangu nga seet ba xam fan nga ci sa digg sa borom mu tudd al li ngay jëf nga di ko def te yàlla doo tax loolu nag mboolem jëf yi jàmbi di jëf bu mën a doon sëriñ bi day wax ne bu ci ixlaas googu amut suñu borom ci soxla jëf yëpp ci yem nag dem sax ba ci jaamu yàlla yi nekk di jaamu yàlla la ci boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam togg doon sayyiduna Muaz ibn Jabal bokk na ci lam ko waxoon ak yee xew bokk na ci liy téye suñu borom nangu jëfi nit ki mooy bakkaar yu bari yi te nit ki di jàngonte moom fu mu toll bakkaar yooyu nag li waral nit ki di jàngonte moom mooy ñàkk sell diggante ak boromam te mooy diggante jëw ak xas nit ak lekk ba mat juróom-ñaar juróom-ñaar yëpp waxoon na ne day tey jëf di àgg koo xam ne sa jëf mënut àgg nag mën a ñaan yàlla lu nangu ginnaaw sa jëf mënee su ko mënee su ko nangu kon mënugoo ñaan yàlla lu nangu te waxoon na bokk na ci li sëñ bi waxoon mag ñi mooy suñu borom moom boo bëggee mu nangu la ko Euh, ana nga mu ne la maa ngi nii ana nga gi nag mooy jëfe mbooleem lim digle te lim tere kenn mën la caa seen kon loolu ab sart la ci bokk bokk li tax ñu nangu ñaan beneen bi topp mooy rafet njort ci yàlla suñu borom boo koy ñaan da ngay rafet njort ci moom xam ne moom kat li mu yor da koy may donc te tënku na wax tëkku na wax ne sax inna lasina yastakbiruuna an ibaadati sayadxuluuna jahannama daaxirin kon moom ab may waa kon la boo xam ne la koy bégloo mooy jaam bi di ko ñaan mu di ko may ba dem na ba ci kii tuub di jégalu sax ni si borom di béggee ci moom ni ko sallallahu alayhi doon nuróoleeg ki gëléem gi réeroon te xamul fu mu koy waree mu dem ba jaaxle tëdd ci ronu garab jekki-jekki rek xippi yam ci nos bi noonu muy béggee noonu mu gisee gëléemam gi suñu borom wax na nekk mooy yàlla day bëgg jaam bi yëg ne ak xubóodiyee mi ngi ci moom mooy mu yëg ne moom ab jaam dong la am na ko ko moom tey soppandi ci moom boobaa nag bu yëgee la ma borom moomu da cee doxalu woon kenn koo xam ne mooy mooy tax digal digale bi ba tax bu ne yàlla ana nga rek mu ne ko maa ngi daana wax ne sax damay am kersa ci sama borom ba ni may ñaanee ndax ndax firnde ji mu koy wan nga xam ne fu mu ñaan rek ñaan nga dee daan nangu beneen bi topp it mooy jëfee eh, rafet njort rafet njort ci suñu borom subhanahu wa taala rafet njort gu wér ci yëg ne suñu borom mi li yor da koy joxe te ku ko ñaan dong lay dugal nga di ko ñaan jàpp naa ne yii bu dajee ci jàmm bi ijaaba googu ñuy wax dina ko mën a am te mooy lu mu ñaan yàlla suñu borom fekk ko ci. loolu yaakaar naa ne sëñ Moustapha ci appel bi rek ku ko ci topp da gis ne jaam bi day ñaan defe ne yàlla da koy daayira wuyu ci ngoon gi fekk ne boo xoolee ci ñaanu sun maam Ibrahim ca ca ca Makkatal Mukarrama bi ko bi ko yàlla wuyu ñaan gi daanaka fekku maa Ibrahima ci kaw suuf bari na sëtam yu ko fekkiwut ci kaw suuf waaye boo dee xool ci ñaani gaay yu baax yu baree bari lu mel ne Seydina Abdou Khadir Jeylaani Cheikh Ahmed Tidiane ak ñoom ñëpp ba ci ñaanuk Serigne Touba Xaadimu Rasul gi ba muy ñaan yàlla dëkkam bi wajhalhu daban maskana taallumi wa mawdiha alfikrati wa tafahumi ba muy ñaan sun borom subhanahu wa a itam di ko naan wa ardahu ijhal arda risqin wa aman wa rahmatin wa sahatin kulla awaan ba muy ñaan jumaa ji ak yeneen ya mel na moom ba ci daari kaamil ji ba ci bi eh, université bi eh, Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan ba ko sënti Tuubaa di ñaan booba mbaarum senga fi nekk wala boog mbaarum eh, ndon yaakaar naa ne diggante bi lu gàtt-gàtt mat na ñaar fukki at wala mën na fanweeri at ak nangam te sëñ Tuubaa fu mu ne yàlla ana nga mu ne ko maa ngi nii kon ndakate jaam bi dana woo yàlla te yàlla wuy seegu ko fekk na yàlla da koy dajaleel yi gën yëpp mu su ko joxee mu doyal sëkk loolu mooy tax nit ki bàkkaaru itam léeg-léeg bàkkaar ba day mel neex ci moom fekk na yàlla da koy dajaleel yu bon yi saa yu ko kon wal xiyaasu yàlla yal nañu ci yàlla musal kon euh, sëñ Abdou Khadir euh, damay ñëwaat nag yow sëñ du Khadir nag jikko yi nga xam ne moom la ab jaam di ñaane yàlla te yëpp daje ci moom nan nga ñu ko mën a misaale waaw kay sëñ Abdul Xaadir eh, jikko yi nga xam ne mooy tax jaam bi bu wooyee boroomam muyu ko dafa daje ci moom loolu eh, dañ koy gis ci ay jëfam day feeñ ci ñi jëflanteeg moom yañ seetlu ci ay jikkoom bañ dajale ko man koo jàngat man koo jariñoo damay wax ne bayitu sëñ Abdul Xaadir da baax wi mu ko wayoon rek doyoon na sëkk ñu xam ne kii borom ijaaba la kaana taqiyan aaliman sunniya wa xaaifan li rabbihi mardiya maanaam ay ay la dajale foofu xam ne benn rek boo ci am man nga doy ne sëkk moom kaana taqiyan ragal yàlla maanaam taqwa mi ngi woon ci moom te ku ne xam ne ne taqwa mooy lépp moom waaye moo teg ci ne aaliman di boroom xam-xam te si Abdul Xaadir boroom xam-xam bu jëfe xam ndax boroom xam-xam bu ñu ko wax mooy ku jëfe xam-xam Sëñ ne woon na boroom xam-xam bala wax tudde boroom day jëfe lam xam kon si Abdul Xaadir moom day boroom xam-xam bu jëfe lam xam waaye di sunni yu nag yaakaar naa moom Euh, ban bañ na ko baat bi newoon mooy borom moom nee na sunni mooy borom <laughs> maanaam moom baat yëpp sunni yoo ma ci gënal waaye newoon nag ku ragal boromam koo xam ne da koy wattandiku ci ay ndigalam di ko wattandiku ci ay tereem doon koo xam ne itam ku yàlla gërëm la mu jikko yii nag Sëñ Abdul Aziz tudd na ko ne jikkoy Sëñ Abdul Xaadir la jikko yi nag benn bu ci nekk rek ku xam Sëñ Abdul Xaadir da nga mën a wax nga mën a waat ne li jikkoo ma woon su ko defee yooyu bu dajee ci moom daa daal di feeñ nag ci ijaaba gi nga xam ne am na ko ndax wax naa léegi ijaaba yan sart mooy daje nit ki am ijaaba bu ñaan yàlla may ko sëñ Abdul Xaadir eh, lim ñaanal nit nit ka gis ko ci lu gaaw a gaaw a gaaw bu ñu ko doon lim fee la ñuy fanaan moom maanaam nit ku war a ñàkk ba kanam nit koo xam ne daa feebar feebar am ne tiit na ca nit koo xam ne àgg na ci jafe-jafe yoo xam ne jaaxal na ko ku ci doon rek da nga dem ba mu jaaxal la jaaxal ko xam boo ko waxee sëñ Abdul Xaadir moom na muy yombee ci moom sax àgg loolu nag li ko may mooy ki muy ñaan la xam te daa taxaw moom itam nag ki muy ñaan am na ko te nangul na ko moo tax moom lu ko waay wax rek day la rafet njort ci boromam loolu xam ne lii day daal di saafaroo léegi loolu lak ko mayoon mooy jëf joo xam ne ñëpp seere nañ ko koo xam ne ci rawam ba ci ak magam ñëpp xam nañ ne lépp luy mandargam baax taqoo jàkka-jàkk bëgg boromam tabaaraka wa la di ko wéetal jikko yi dayoon na ci moom moo tax sëñ Modou Mamoune Niang ba mu koy tàgg moom itam jikko yam ko seereel mooy jikko yi tedd yi saduqun saadiqun lil wa'di habdun taqiyun saalihun xaqa tuqaati maanaam nga xam ne jaam la boo xam ne ku dëggu la waaye ku dëggal rendiwu la mooy lu mu la koy def doon koo xam ne itam jaamu yàlla la bu ko ragal tey ko baax te xàqa tuqaati la wax maanaam dëgg dëgg ragal la moom maanaam ragalantuwul yàlla da a wér a wér jikko yi xam ne kii kon ku taqoog boroom la kum nangul la ndax yàlla suñu borom tabaaraka taala ginnaaw leeraloon na lii tax mu mayee lii tax boo ko woowee mu wuy la nga di ko jaamu ni ko addis ba leerale si abdul xaadir mataloon loolu lépp mu wax ne fa yarkaxu li duxaa naflan wa yaxlu bi xaymatihi wa fi xafril falaat maanaam daan doon koo xam ne di waxtu bu nekk ma ngay wéet di wéetal boromam di ko naafilaal guddi yi ak bëccëg yi waaye di ko wooral bis yi nga xam ne ñu sopp woor la ndax ku ne xam ne ne koori ngàtt ngi di ko taqawoon moom monsieur Abdul Xaadir loolu lépp nag kon dañuy delloo ci addis ba yéen bi sama waxoon ne yàlla suñu borom tabaraka wa taala addil xudsi hadisul xudsi la suñu borom tabaraka wa taala daa wax ne laa yazaalu abdu yataqarrabu ilay bi nawafil xata uhibba fa sa ahbabtuhu kuntu samhahu allazi yasmahu bi wa basarahu bi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha wala in sa'alani la utiyanna maanaam yàlla nee na jaam bi du deñ mukk di ma jëfal farata yi ak naafile yi ba mujj man maa koy bëgg su ma ko bëggee nag damay mujj nekk ay noppam ak du am amatu dégg déggu yàlla lay déggee déggu yàlla na ku ciy dégg mën ngaa déggul ne waaye itam euh, day doon koo xam ne euh, tànkam ak i loxoom lépp loxo yi suñu borom tabaaraka wa doon nga xam ne lu muy jëf rek da koy jëf ci kàttanu suñu borom tabaaraka goo xam ne day mel ni suñu borom ay jëf mu tekkee nag wala in saalani la onte yenn saa bu ma laajal ma jox ko saa bu ma laajal ma jox ko te la onte yenn ko xam baatu arab bi xam ne moom da koo fedd li laaj dama koy jox muy loo xam ne amul benn sikk sàkk wala in istahazani la uhizanna lépp duut ragal dara si Abdul Xaadir ku xamoon ni meloon ci wakkeelu ci yàlla da nga xam ni ko may dafa taxoo ki nga xam ne mooy musle jeex na jërëtu muy sox muy soxla leneen kon loolu <laughs> jërëjëf jërëjëf jërëjëf si s Xaadir day mel ne day mel ne da ngay tari maanaam da ngay jàkkaarloog seetu bi rek di nettali euh, ndax ndax euh, li ngay wax saa yoo daanelee dana am ku mën a toog ca saalam dëggal ko ne ngir man waaw bi ngay wax ci ne ca it bu ko yàlla yuyu fii ci àdduna ak ci àllaaxira la koy wuyu ndax sëñ Abdou Khadir dana régler problème yi àdduna de di régler problème yi àllaaxira te nekk fii ci àdduna loolu mooy nangu ne jaam bi suñ borom wan na ko magasin bi na ko mayatuma la del tibb di joxe moo ma mën nañoo mën nañoo firee baatub ba dëgg mooy del tibb di joxe magasin baa nga del tibb di joxe eh, dama ci joxe benn misaal bala may ñëw ci sëñ jili eh, sama sëriñ Cheikh Mahamadou Roqee yal na yàlla dooli ngërëmam ak yërmandeem dafa wéradi wéradi gu jaaxal adduna sëñ Abdou Lahad ñëw seet si ko te boobu mooy xalif sal di murit bi mu ñëwee seet ko ba génn dafa génn yónnee ci sëñ Abdou Khadir na ko boo demee nee ko sëñ Modou Roqee dafa wéradi gi wéradi goo xam ne jéggi na dayoo te barab ba mu nekk mën mënagu faa jóg bi mu dikkee sëñ Abdou Khadir yónnee ci moom ak ñaan ñaan ngi man teg naa ci sama bët jaar na ci sama loxo bi mu ko ñaanalee ci suba sa fekk na booba am yu ñu waroon a defal sañ Modou Rokhaya ca suba sa moo jógal toog bopp jógal boppam toog wan ne man de sëñ Tuubaa ma delloo si moo ko waxal boppam sëñ Abdou Khadir kam jox ndaw la eh, eh, ñaan nga ca fajar ga da ko woo ko mu roqee de ku ko fekk fa mu nekk xam ne ñaanal naa ko biig waaw kon loolu yàqin lay am ci li muy def yàqin lay am ci li muy def Euh, sëñ ji li yaakaar tomb yi sëñ Abdou Khadir indi bu mu ci daaneel rek man ngaa joxe misaal na sëñ Abdou Khadir defoon na ko fi sàngam. jërëjëf la Fall la sëñ Abdou Khadir demee na loolu nag day daa mbokk mu baax euh, sëñ Abdou Labe Peex dafa mos jàkkaarloo moom ne ko lii mooy yore yaa ko boole lam yu juum cër yu musta mooy yàlla biir musta rek lekk riba ñett yooyu nag mooy ñaan mu nangu ndax suñ wax na léegi yéen di sax ci hadiis ba ka nga xam ne doxoon na ba yaram wa fag yëre yu fag yaram wa sonn teewul ba mu ñaanee yàlla nee na nan lañ koy wuyoo ndax biir balaa fees ak lu xaraam Seex Abdu Xaadir nag dundam gépp ci loolu la ma sa dunde sëñ da ngay xool toog na fii ci kër gi fii ngi toog ñu wax ne mbaar mi muy taw mu senn ba fi mu toog mool lañ ko tegal mu tekki tànk yi ngir ndox muy wal ñu ne ko ah, teewoon ngaa génn ci yëngukat yi nekk ci dëkk bi xëy na am na ñoo xam ne boo leen lebee ñu lebal la seng yoo ko xadde mu ne leb moom jiit yàlla ci mbir la te man duma ko jiitu yàlla ci mbir la te man duma ko def daana wax du ma leb du ma leble koo xam ne du leb du lew nag kon du lekk lu lewut te bokk na ci li tax ñaan a nangu nag lekk lu lew da ca bokk mooy baraana nit koo xam ne day ñaan yàlla nanguwut dañuy wax ne benn fepp uh, uh, bu lewut nit ku bu ko lekkee ci biiram borom xam ne dañuy yoo xam ne lu ñaan yàlla yàlla du ko nangu Seex Abdu Xaadir nag fexoon na ba ci noonu nga xam lu mu ñaan rek lu mu ñaan rek ci sensé dañuy gis firnde ji mooy misaal mi nga joxe léegi ci Euh, sëñ Modou Rokhaya am na kenn ci mbokki Mbusoobe mi kilifa goo xam ne dafa wér di woon wér digu waar goo xam ne dañ ko waroon opéré te bopp bi la ñu waroon opéré ci boobu jamono ñu waroon ko defee hôpitalu Fann yàlla dogal bi mu toppee rendez-vous yi ba dara desul lu ma ñu opéré ko xel mi dalut lool ci opération bi mu ñëw Sëñ Abdou di tàggoo ngir bëgg a dem waaye booba am nag jiixi jaaxa bëgg na Sëñ Abdou Khadir waxul dalal xelam lu bokkut ak rek dem ci docteur yi maa ngi fa nekkoon nag am ci ah, ne laaj na ko ko dimbali ko ko dimbali mu jël ma jóg defal la waa ne ko xaaral ma jóg defal la lu afaan mënut jógal boppam dugg ci biir indi ab bitel jox ko ne ko boo demee nga jëfandikoo ko te boo xëyee na fi lu mu néew ne lu man ñaar fukki at doog fi jóge mbalu ko pour sax ndax ba mu fi jógee léegi mu nag yu bare bare bare la yoo xam ne noonu nga ko waxee mooy fii ñu toog di ko wax nit mën a toog ca roqam ne mag Sëñ Abdou Khadir seq nañ lu mel noonu man mii rek di wax doy naa ci misaal man moom ñaanu Sëñ Abdou gu nangu laa sama waajur damaa nettali wax ne moom ñoom couleur lañ seqoon goo xam ne gu yàgg la lu jiitu sama maam am boo xam ne dañoo wari ba noppi nee na mu dem di ko tàggu ngir bëgg a dellu ci réew ma ne ko dama bëgg a dem del si jàmm fekk la fi te indaale xéewal te dama bëgg màggal si Sëñ Abdou Khadre ko incha yàlla dina ko def ba mu ko wanee ginnaaw weer digg ba ca topp ci laa gën a jamono mu tuddoon Sëñ Abdou Khadre ba gis ne mboolem tukki yi mas a dem lu jiitu woon loola yoon yi moom wenn melu ko ci te moo gën a gàtt it boole ci tey xéewal gu ci dolli ko bi ñëwee fekk na am am sëñ Abdul Xaadir mu ne ko kon kon nag boo demee fexeel indi ko ba gis ko kon loolu day tegtale mooy li nga doon wax léegi ne kenn ku nekk fa toog mën naa yëg ne sëñ Abdul Xaadir jëfandikoo ci moom diggante ak borom loo xam ne da ko laaj ngir moom suñu borom jox ko ko te lu bare bare lañ ci mën a nettali jërëjëf sëñ Jili Ja euh, tungu ni du teew ñu ne daal waaye boo daaneele nga alma ko man man yaakaar naa ne fi mu ne ku ma ku laaj Fallou falu la da nga am jaaxle ci moom benn sëriñ bu ma mën a yóbbu ndakaaru daanaka amut man sama bopp mënumaa dem ndakaaru te sëñ Abdou Khadir ma ko teg dama dama dama nekk ndakaaru ca poor ba di fa yëngatu maa ngi sant bu baax baax sama sëriñ sëriñ Cheikh Anta Mbacke ci jamono jooju mu yëkkati ñaar fukki junni jox ma na ma dama bëgg nga wut nga booba sëñ mu roq yaa ngi fi yàgg na du léegi ñaar fukki junni jamono jooju booba naa def dara ma nekk ndakaaru gis ne ndakaaru gii du sama jëmuwaay ndax baaxut ci man ndax àdduna nga may wuy si teyit lii daal du sama wàll ma tiit ci nag ma ñëw fii fekk sëñ Abdou Khadir booba am na dara bi yu daan jóge Côte ñu ci ñu koy ñaw mu ay jàmbu jóob di ci nekk ak yeneen yu mel booba mille francs lay jar ma jënd ci benn drop ñëw fekk fii sëñ Abdou Khadir ma nuyoog moom ne ko fàllu sill mu ne ma sill am sill ma ne ko sill laa sant mu ne ko sa baay ma ne ko seex sill mu ne ma loo bokk ma paate nga xam ne daf maa dépensé dem wax ko jur sama yaay waaw loo bokk ma paate mbay ma ne ko sama maama mu ree na ma lu mu doonoon ma ne ko damaa nekk ndakaaru dafa yëngatu te bëggoon a ba ndakaaru waa ndakaaru ñëw Touba lu may am amee ko Touba mu ne moo gën de ah, waaw gis nga baatu moo gën a mboobee xañ na ma dem ndakaaru léegi maanaam daka lu jafe la kon damay wane rek lu mu wax rek làmmiñ wee barkeel lu mu wax yàlla def ko loolu waaw beneen bi ci topp xam naa li des ci waxtu bariwut armeel yi armeel yii jamono ji alaaji ñu ko kebee faatoo am na ñu ñu ko waroon a booleel julleel ko sëñ Abdou Khadir bi mu ñëwee am na ci kum seppi laaj ay laaj la ca teg te yaakaar li may wax àdduna ma na koo seere ba noppi dana leen foofu leen ko yóbbu Daaru Salaam waaw foofu kuy laaj kuy laaj laajte du fa nekk kon moom mi xàmmee ñin war laaj ak ñi wërta laaj bala ñoo tàbbi ci bàmmeel xam ngeen ne yàlla nangul na ko kon sëñ Abdou Khadir dama lay jox sa kàddu yi ngay daaneele eh, bala ñoo tëj jotaay bi jërëjëf jërëjëf sëñ Fallou jërëjëf sëñ Abdou Khadir moom ni mu ko waxee rek maanaam misaal yi defal nit ci ci ci ci ijaabaam ba xettali ko xettali waxaan wuy àgg ci dayo la loolu moom bu ñu wax naa ko léegi waaye ñu tudd ci kenn koo xam ne moom itam eh, nettali nañu ne la mi nga xam ne ku ñu bari xam ne sëñ Abdou Khadir gi moo nettali ab taw lañ ma soon yittewoo am sëñ Moussa sëñ Abdou Khadir mi la sëñ Abdou joxoon ay tool mu bay fa ba noppi yàlla dogal mbay ma rafet loolu waaye taw ba gàntu maanaam daal maral suñ maam suñu Abdou Khadir yabal suñu maam Mor Sène ko dama xoolee ma tool yi suñu koy xooli eh, xëy na wax waxuñu maral sax waaye dana ko demal xooli mu xool ko dikk ne ko ah, mbay ma da rafet na waaye day soxla na ndox li xam naa la mëla ko boppam suñu ko léegi rek de léegi rek de neen daal tuuti lañ ca taw ba bari bari boo xam ne yéeme na daj fépp nag nee ñu ñëwaat di ko waxtaan naan ah ndox mi de moom bari na lool xam moom mooy moo ko tax a jóg de fu mu jaar dafaa jaar waaye foo ko tax jóg kon loolu moom <laughs> yaakaar naa <laughs> buñ ko doon topp moom fi la ñuy fanaan kon nag ñu ngi sant bu baax tey gërëm tey wax ni daal si Abdul Xaadir daal lii moom wax dëgg yàlla lu am am solo la maanaam maanaam euh, tomb yi ñuy tànn waxtaan gi mooy ñu xam li ko may mm-hmm. mooy nag jeex tàkk ci boroom rek waaw la nga lam am moom lam daj rek lim daj ci boroom nag kuñ ko wax nga xam ne sonn na ci boroom lool moo tax boroom jox ko li mu ko joxin nag kon ñu fàttaliwaat nit ñi ñu xam ne yàlla mi ngi fi jógu fi du fi mas a jóg lu baax du soppi ku mukk ku góorgóorlu teg sa tànk fa ko ñu baax ña tegoon boo àggul fañ àggoon da am cër bu ñëpp xarañee loolu doo nga tax waxtaan yi jóg kon ñu ngi sant tey gërëm tey jéggalu ci kàddu yi lépp lu ci dëng lu ci ñu ngi koy sant suñu borom tabaraka wa taala di ñaan suñu borom ñu fekkee màggal gi jàmm te dundal ko te dëppoo ci ngërëmu Sëñ Abdul Xaadir ñu ngi jéggalu waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam mel ne kon bis boobu rek nga xam ne euh, mooy bisu Cheikh Abdul Xaadir tam ñoon jamono ci ñetti fan ci aw euh, ba euh, tamxarit wares naa jàpp ne bis la boo xam ne li ma waxoon ci appel bi ne bisum njëggal la ndax ki ci nekk kum tinu yàlla tin ko te sëñ Tuubaa moo wax ne ëndaali na ak njëggal ba ku gis maam Thierno ñu jégal la kon bisum jégal la waaye ndakate bis bu yàlla wuyoo ak ñaan la ndakate kii yàlla nanguloon ba lu mu ko laaj mu jox ko ko bisub Cheikh Abdou Khadir mën naa dàq mboolem liñ tiit ci réew mi bisub Cheikh Abdou Khadir bi di ñëw mën naa dàq lépp luñ tiit ci waxuma la ci réew mi waaye mën na ko dàq ci Afrique mën na ko dàq ci àdduna bi te rafet na njort na sax nag ci la koy dàqee waa rafet na njort lool na ci la koy dàqee ndax ñi ngi waxaat ñi ngi ñi ngi wax maase di wax ci al ijaabatu te baatub ijaabatu ci la Sénégal gépp ànd àdduna bépp ci lañ ànd yéefar yi sax ci lañ nekk léegi tàllal seen loxo yàlla kon nag ka nga xam ne moom la yàlla rusoon mu di Cheikh Abdou Khadir toll na ci bisam naa ne nangu ñaan weesuwut ñaan ba yàlla ñëw na la maa ngi Cheikh Abdou Khadir fii ci Baxdaad la toog di di di ñaan ba yonent bi alayhi salaatu fekk ko fa te ku dem Baxdaad gis xam na la fii la yonent bi ñëwoon te sëñ Abdou Khadir ku ne xam ne am na ci cër boromam boo xam ne du ne yonent bi gi feet seet si na ma seet siwu ko kon ginnaaw sëñ Touba rek moom lañ déggaat ku ne Mouhamed fekk na ma fii kon yaakaar naa sëñ ji li loolu doy na sëkk ñoo joxaat la kàddu gi nga tàggatoo ak bokki eh, taalibe yi jërëjëf sëñ Fall wax ji matale na sëkk eh, li am solo daal te am solo mooy suñu borom nee na fa da'uuhu muxlisiina lahu diin walaw kariha al kaafiruun nee na daal nañ ko ñaan te sellal ko buñ ko defee liñ bëgg dinañ ko am yoonu ñaan wi nag mooy melokaanu Sëñ Abdul Xaadir mooy li ma doon junj léegi daal làmmiñ wu musta juum céerum yu musta mooy yàlla biir bu musta rek riba képp koo ko mën a assuré te sikk sàkk woo ko yëgal ne boo ñaanee yàlla yàlla dina ko nangu yàlla ñu àgg ci bis bi jàmm te suñu borom jaaree ci mboolem liy nuru ay jafe-jafe ci àdduna yàlla na ko suñu borom jëlee ci bis na na lu ko yàlla mayoon te loolu sukkandiku jógu lii ñuy nettalee Cheikh Abdou Khadir li mu jëflanteeg ay nit ci dundam ginnaaw mënees naa nettali loo xam ne da ko jëflanteeg ay nit ci ginnaaw bi mu fi jógee te gisatuñ ko kon nag nañ jàpp ne mi ngi fi kon yàlla ñu suñu borom defal tawfiq ñu dundal ko ni ñu bëggee ñu dundalee ko noona te suñu borom nangul ñu ko te defal ñu ci lu koy suñu jot ci lépp ci barke Sëriñ Tuubaa euh, jërëjëf sëñ Jili Dia jërëjëf sëriñ euh, Jili itam sëriñ Saalihu Mbacke moom sëriñ euh, moo àndoon ñetti fan ci weeru tam di bisub Cheikh Abdoul Khadir bi nga xam sëriñ bi wax na ne képp koo xamante ni yaa ngi si digal yi Cheikh Mountakha joxe nangu ko jëfandikoo muy jëfandikoo sabab yi ca wàkkirlu ci yàlla jëfandikoo sabab yi nag bokk na ci foo mën a jëm na nga yor ab masque waaye foo mën a jëm it na ngay raxasoo bu set waaye na ngay ŋàb bu sel loolu yaakaar naa ne bokk yi yomb na lool te ko agsi ci sëriñ bi nga toog na ko mbàkke te toog fële yaakaar naa ne loolu lu yomb yomb la kon nag bokk yi ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm eh, di leen joxaat rendez ci beneen numéro mu di eh, deuxième numéro bi nga xamante ne bii wala boog eh, beneen numéro ci yeneen jataay di sant jullit yëpp di sant taalibe yëpp seen bokkum taalibe Fallou Xalilu Fall ci wàllu euh, caméra yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. xam nga tax mu doon imaam dafa bëggoon xayral anaam sëñ bi ko la wax nag woon bis bam ganee adduna moom fële ñu naa darul halim moom la wolof yi waye ndaam Cheikh Abdourahman ma nga fa woon muy ñetti fan ci utam xarit